رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي نقول دي نيو بباها با ما شاء الله ني سيفو سين تيليفون في دي تيون سي تي في دي نيانال جامو تا ديكو ساكو سي يين باخ فتبارك الله ني ديكات ديال bëgg a continuer ak fa ñu yemoon ci tafsirul quranul karim fa tabarakallah bi ci shahril mubarak yi paase nag ñi doon jàngale lenn ci yi nga xamante ni yàlla misaal na ko mu am ca aljanna waaye boo xoolee ay ci wàcc bari na lool رميت سورة المائدة يلا في وحنان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا له في أسواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا فتبارك الله ودميتم يالا مجي وحبو أماسي مصر الجنة التي وحد المتقين أكلها دائم فتبارك الله mu ne booy xool lekk aljanna ya day sax amul tey dangay lekk lekk nga jeex suba nga bëgg lekk amoo lekk walla nga naan tey naan nga jeex nga bëgg a naani macha allah amoo ko aljanna yàlla da ko pare moo tax yenn téer yi ñu ngi wax ne ba léegi yàlla mu ngi liggéey aljanna aljanna parewu ba léegi yàllaa ngi liggéey aljana aljana pareegul dañu ne bépp julli boo julli ci yenent bi julli googu lumière googu soo ko jullee dañ koy yokk bokk ci lumière yi aljanna wa tabaarakallah goo xamante ni moo lay ñiital amul coupé amul lenn fa tabaarakallaahu ngir yàlla mat gi mu mat ba lépp loo xamante ni fa tabaarakallaahu rek defar na ko loolu daal di jag macha allah sunu borom bi subhanahu wa taala di kontele ci ñun ci aaya bi inna allaha la yastaxi an yadriba masalan ma bacudatan fama fawqaha fa amma alladina amanu fa yaclamuuna annahu alxaqu min rabbihim وأما الذين كفروا فيقولون ما ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويأدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين سنو برم بي دي وحنا إن الله نك الله لا يستحي الرسل أن يدرب مصد مثلا أبليب لبو خمنتني ما بعودة فما فوقها لطلق يوم ولو لكتب يعني yalla ma nettali ci alxuraan ak lu alxuraan lu muy foor foor ma tudd ci yoo walla loo xamante ni dafa ëpp yoo dañu ne am na lu sabab yàlla wax li muy sababu nusulu aaya bi yàlla jékki-jékkiwul rekk wax li woo ci demee ci téere tafsir indi nañ ci yeneen riwaay dañu ne boo xoolee li tax yàlla wàcc aaya bi ñu ne lamma daraba allahu hazayni l masalayni lil munafiqina yaani masalahum fa tabarakallahu wa aw ka sayyibin min as-sama masalahum ka masali la si saw xada naar boobu ak aw ka sayyibi mu ne yàlla bi mu ëndee ñaari misaal yooyu te ñu jàngoon ko mu ci misaal naafiq muy masaluhum ak ak aw ka sayibin bi mu wàccee loolu naafeqeen ñëw ci yenent wi na ko neexul ba neexul waaye allahu ala wa ajal min an yadriba hasil amsal yàlla daal moo màgg yàlla daal moo teg bi muy joxe ay message ci yii nii ah. ci la yàlla wàcc aay bi ne rusuma sadd lu tolloog yoo wala loo xamante ni ëpp na yoon ci téere bi am na ñu ne loolu moo tax yàlla wàcc aaya bi am na ñu ne déedéet li tax yàlla wàcc aaya bi lama zakara allahu ankabuuta wa zubaab qaala almushrikuun ma baalul ankabuut wa zubaab bi an yuskiraani fa anzala allahu haasi aaya dañu ne bi yàlla wàccee suratul ankabuut yàlla wàcce ne ab saar tuddee ko ankabuut jargoñ indi ci misaal fa tabaarakallaahu inna awhanal buyuut la baytul ankabut fa la mu ne néegi néeg bi ci gën a doye di mooy néegu ankabut mooy néegu jargoñ boo xoolee néeg la boo xamante ni suy taw boo ca duggee mënu laa tere ba doo tooy buy tàng ti mboo ca làqoo mënu laa fexe ba naaj wi du la kii wa tabaarakallaahu yàlla ngi cay misaal ba tuddee ko saar tuddee ko ankabut macha allah am na ñu ne li yàlla aaya bi mu wàcc tudd ci yoo tudd ci weñ fa tabaarakallaahu yooyu ñoo sa moo tax yàlla wàcc li mooy aaya bi nga xamante ni yàlla mu ngi wax yaa ayyuhan naasu duriba masalun fastamiu la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز yàlla ne yaa ayoo naas ay yéen nit ñi duri ba masalul sa def nañu ab léeb fastami wala na ngeen ko déglu dem ba ci biir yàlla ne inna alladina taddauna min dunillah ñi nga xamante ni dañ ma fee bàyyi man yàlla ma bind leen abalal leen lépp ñi teg ma fi ñi tege dem jëlaat beneen yàlla boo xamante ni ñoom ñaar ñépp maa leen boole bind ñoom ñu xem seen bopp jël ki nga xamante ni mbindeef la comme ñoom ñi di ko jaam yàlla ne booy xool ki ñuy jaamu def ko yàlla ak kiy jaamu yàlla ne ñoom ñépp boo leen dajalee lu tolloog weñ mënuñ koo bind waaw kii kii jaamu muy taalib bi ak matlub bi mooy ki ñuy jaamu ñoom ñépp boo leen dajalee mënuñuy bind lu tolloog weñ fa tabaraka lan yaruqu zuba wala wit dama la donte ne daja nañ seen xam-xam lépp seen mbokk yëpp dimbale leen mënuñuy bind fa tabaarakallaahu lu tolloo weñ am na ñu ne bi yàlla wàccee ñu ne yàlla daal neexul ba neexul ah, yàlla daal moom moom daal li muy wax alquran ji naan alquran ju tedd la balaa yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin alquran ji nga xamante ni moom la wax naan law anzalna haza alqurana ala jabalin la raaytuhu xaashian mutashaddian min qasyatillah wa tilka lamthaalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkaru alquran jii fa tabaarakallaahu ngir gi mu waxee ne màgga li mu màggee fa tabaarakallaahu muy jël lu toll ni weñ di ko ci tudd ci ci téere ci la tax nag yàlla wàccee aaya bi fa tabaarakallaahu am na ñu ne loolu mooy sababu nuzul haazihil aaya Yalla ne inna allaha naka Yalla, laa yastahi rusul an yadriba mu masalan leb, ma baudatan lu toll ni yow fa ma fawqaha wala lu ëpp ni yo te xamuñ ne bi yàlla kereyee yoo rek ci la am njëriñ yàlla kerewul dara lu ñàkk njëriñ xoolal yow li muy tuuti tuuti tuuti fit mu am gaynde sax amul moo tax yenn tiir yi di wax ne yoo bu amoon fitu gaynde ko doon nit ñi dee ndax yow moo lay fekk mooy fekk ab guur garde koor yi wër ko macha allah ñu yor lu ne fa tabaracallah ëm ko waaye yow bëtt làng gi yëpp ñëw ba ci buur ba ñuy garde mu màtt mu xefeewu ana garde koor yi yoo mooy fekkam sëriñ taalibi yëpp wër ko di ko garde mu bëtti taalibi yëpp ànd ak fi ñi ñaanga yi wupp yooy ñëw matt sëñ bi ana taalibee kon ngay xam ne yoo dafa am fit lépp luy am fit yoo ko ëpp fit moo tax kon yoo ay secret moo tax gay ne téeri yenn téeri di wax ne buroo noonu fit wi nga xamante ni yoo am na ko yàlla roof na ko gaynde konoon nit ñi deere ndax koon gaynde yi dañuy ñëw ba ci nit ak ak doole ji leen yàlla dégg konoon ñëpp la yore te beneen bi yoo bi ngeen di gis ni muy tuuti tuuti yàlla def na ci moom mu am ñeenti laaf muy quatre laaf waaye am na six tànk yoo xamante ni moom lay doxe ba dañu ne am na sax bégu luñ koy misaalee mooy lan mooy mooy ñay lépp loo xamante taxawaayu ñay te am na sax loo xamante ni ñay amul muy laafi bég bi yor na ko geen bi yor na ko lépp bég boobu noonu bis bu la màttee bu la màttee te mu jëloon micro bu la ko bu la ko bu la ko joxee rek moo moo lay jox nga sibu di waaye nan sibu te yow ko man fa tabaarakal te yàlla ngi ci def ay mbóot kon yàlla lépp lu mu bind rek fa tabaarakallaahu mbir la kon nag kon yàlla ne kon rusuma mais sadd ab lépp di ci misaal lu mel ni yoo sama téere bi wala lu ko ëpp lu ci mel ni ñay ak yéen yàlla ne fa am allazina amanu waaye gaa yi nga xamante ni dañoo gëm misaal loolu naa leen ko fa tabaarakallaahu ولماتي صوت المؤمنون يعلم كفاي ملالين جل سيرين ملوكان جل قد افلح المؤمنون بجوح اي ملوكان الذين هم في الصلاة خاشعون بن والذين هم عن اللغو مغردون دو ترازم والذين هم لزكاة فاعلون كترم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه فإنهم غير ملوك yàlla nga fay melo ay jullit ne qad aflaha almuminuun dëgg dëgg texe na almuminuun jullit ñu ne ko yàlla ñan mu ne alladina hum ñi nga xamante ni fii salaatim seen julli xaashi'uuna dañuy torox bu ñu kàbbaree rek fa tabaarakallaahu commencé ànd ak yëg di connecté wu seen borom bi subhaanahu wa taala du yëgati leen yenn téere dañuy nettali am na benn paa bu feebaroon fa tabaarakallaahu yenn xissa bi mu feebaree macha allah mu dem ci médecin yi ñi ne paa bi daal pour mu wér tànk bi faaw ñu daggu ñu wax ko paa bi paa bi na déere bu dee lii de kon nii lay deyaale feebar bi met sama tànk mu may dund kenn du ko tam ñu wax ko doom yi ñu ne ah paa bi de wax nañ ko ne ko benn solution lañ ci am faw ñu dagg tànk bi nga wér mu ne nag moom muy dund du ko nag fa tabarakallahu do mi ne loolu la leen wax ñu ne ko waaw loolu la joxan len bu lol am nañ ci solution ay na ko am nga am nga ci beneen solution doom yi ne waaw ñu ne ban solution nga am mu dayeen di bàyyi ba mu julli bu kàbbari di julli rek ndeysaan dul fi nekkati subaa lépp lu ngeen bëgg a def rek man ngeen koo def dañ ne ba mu kàbbari ne allahu akbar ci lañu wooyu médecin yi ñëw ci la dagg tànk ba def daf ca garab ba mu pare bandaas ku ba pare baaba ngay julli bi mu pare na assalaamu aleykum ci la doog a yëg ne tànk ba dagg allahu akbar xoolal concentré góob xoolal yëg góob waaye julli rek sa xel ma ne ca téléphone ba am na ñoo dañuy julli làmb seen téléphone ni xool heure toog ba ci yàgg message kii ñu xool message bi kan mu yónni message bi ci biir julli فتبارك الله دي جولي تال ساب تيلي تال ساب تيلي توك با تي ياغ غي خول ما شاء الله اندو كونسانتر لولو اندو توك جولي جولي دافا اندك اي تروخلو فاذا اتيت الى الصلاه ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واستغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهك الكريم واعتقد بأن الصلاة خشوع wa tawaadoo jullit boo ci ñëwee nanga ànd ak toroxlu jël si lépp nga jox ko borom bi fa tabaarakallaahu lépp loo xamante ni mbiru adduna la nga déchargé ko fa tabaarakallaahu commencé nag chargé sa leeru borom bi ak yëg-yëg gi kon loolu mooy julli moo yàlla ne ñi nga xamante ni seen jullit lañuy toroxlu ñu ne ko yàlla baneen baneen boo ñuy cee tegal mu ne wala ziidakum anil lëgwi ñoo xamante ni bu ñu leen tegalee fo rek ñu dumóoñ fa tabaarakallah boo leen wooyee ci fo ñu dumóoñ soo leen invité fa tabaarakallah ñu dumóoñ ñu ne ñi lii du sunu mécc daf ko ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa ana min ad-dadad wala dadadu man yàlla bi ma fo kon man duma fo fa tabaarakallah moo tax xamu ko macha allah dañu ne bi mu de xale mos nañ ko yóbbu ci saar yooyu waaye ba mu demee rek ci la ci la ko yàlla nelawloo ba affaire yi di kii xamul fa ak kii tabaarakallah nga xam ne macha allah ba demee ci yenn téere siir yi ñu ngi koy ñu ngi koy nettali te booba masooragul bi mu di xale fa tabaarakallah la miinoon jàmm yàlla kon boo nekkee jullit da ngay moytu foofu bokk na ci melukaani jullit wala zino anil lawul moral beneen ba nag mooy lan wala zinom li zakatin faaxilu nga xamante ni bu leen yàlla joxe al alal dañ ciy jox asaka beneen ba mooy lan wallazina hum li furujihim xaafiza yii nii fa tabaarakallaahu mu ngi bokk ci melokaanu jullit mooy ñi nga xamante ni fa law dañuy sàmm seen pays ba duñ ca jëfandikoo loo xamante ni fa tabaarakallaahu bu dee góor lañu du ñu séq jigéen boo xamante ni leewul leen bu dee jigéen lañ du ñu séq góor boo xamante ni fa tabaarakallaahu leewul leen ñu nekk ñoo xamante ni seen lépp ngir borom bi subhanahu wa taala waaye koo xamante ni macha allah macha allah lépp loo xamante ni rek xamoo bu xalaal ba xamoo bu xaram ba yaa ngi ca allah kon yooyu nit ki dafa war a sàmm boo ko ne ci sàmm sa pay mooy sa bët yi macha allah boo ci xool nga xool loo xamante ni fa tabaaraka lu luy jëriñ xool da xool yàlla bind la bàkkaat ki nga xamante ni moom moo melokaanu. woo xamante ni yaa ngi koy xool tim kooku yàlla da koy bindal bàkkaar loolu yenent bi naan laana allahu naadiru wal mansuur yàlla rëbb na kii xool dañ koy bindal bàkkaar beneen bi mooy kan muy wal mansuur ki ñuy xool waaye yow mi nga xamante ni yaay góor nga sol yenn cole ni xale yi jigéen yi dina xool wala yow miy jigéen nga sol colin yoo xamante ni dafa xotteeku fu ne wala maa yasifu bihinna awraatuhunna comme ni ko yenent bi waxee yoo xamante ni sa awra yi mu ngi feeñ fa kalau ngay romb ci public nit ñi di la xool fa tax ñu naan naan xale bi mool nga nga yaakaar ne yow yaa ci kii ngay jeexu di dugg fanen fa tabarakallahu fekk képp koo xamante ni romb nga ko rek ba mu xool la bindal nañ la note xoolal ci yoon xoolal ci yoon balaay ngay yegg ñaata la ah fa tabarakallahu képp ku ñu bindal rek yow bindal nañ kon loolu boo ki julit da nga am noo xamante da ko war comportement nekk ko xamante ni da ngay yiw fa tabaarakallaahu di sol lu jot waaw xale yu góor yi ñoom ak yem de waaw waaw fa tabaarakallaahu moo lee bu jëlee ab lu ci mel ni lëjum def ko sànni ko jën bi am na lu tax am na lu tax baax baax taxul xëcc rek loolu bu ko bu ko jëlee nag bu ko jëlee rek tabaarakallaahu mu man ko fii fiir waaye ñu nag buñ la joxee cinquante mille la yàqal loolu wala yàqal la sax lu ëpp cinq cent mille fa tabaarakallah ñëpp a yem fa tabaarakallah kon yooyu nañ ca gën a bàyyi xel kon yooyu mu bokk ci melokaani jullit yàlla nee na ko melokaani yii ma leen tuddal fa amal lazina amanu waaye ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla nee na fa yaalamuuna danañu xam ànnahu naka liy mbir ci mbir alxaqu mooy dëgg goo xamante ni bi rabbihim mu ngi bàyyeekoo seen borom yàllaa ko wàcce wa ambal lazina këfaru waaye ñi nga xamante ni lépp lu yàlla santaane dañ naan kon yàlla maa maa ne maa lànk ne noono boole ci yàlla di la noonoo képp koo xamante ni topp na la ma di la noono fa tabaarakallah yàlla li nga santaane jox ko yénent bi gis nañ ko waaye topp ñu waaw akbar yàlla julli gi dafa ñu yàlla woor gi defuñu ko yàlla asaka ji defuñu ko ñun daal dañuy topp suñu baaneexu bakkan yàlla ne ah kon nag xam ngeen na nag fa tabaarakallaahu am na fu ngeen jëm wa am allazina kafaru waaye ñi nga xamante ni dañoo weddi fa yaquluuna yàlla rek ndeysaan ni mu mën a jàngale wax na jullit waaye nag mu ngi ñëw ci melokaanu yéeféer tax ma ne kuy waaraate ba ñëw ci yàlla rek fa tabaarakallaahu danga naan kooku mëntu waaraate yàlla rek a mën a waaraate fa tabaarakallaa moo tax ne ñi ñiy waaraate war nañuy xool ca yàlla fa tabaarakallaa di ci roy di ci roy des fois nag nga nga waxtaan bégal nit ñi yóbbu leen aljanna waaye nag des fois nag tegal leen safar waaye waaraate kër yi moom daanaka fa tabaarakallaa aljanna rek gars yi di saraxe rek macha allah waaye safara moom dañ ca dugg xam ne buñ ca duggee seen poos dootul kiyéeti waaye booy booy booy booy booy def na nga def ngir yàlla tax waaw rida ridal ridal ridal naas jamian waaw gaayatan laa tuddal fa gërëm manoo manoo manoo am yeneen bi amul keneen du am mu ngoog ridal naas jamian am na ñu am na beneen bu ñëw na ridal jamian gaayatan laa tuddal ko ba tey waaw ñëpp gërëm la man kenn mënu ko am ba tabaarakallah am na ñoo xamante ni boo booy waaraate doxal am ñoo xam dana leen neex waaye am na ñoo xamante ni moom da yëngu rek fa tabaarakallah day yóbbu ñëpp aljanna borom gërëvaas yeeg ñuy kii ñëpp fa tabaarakallah ñoom bu sukkandikoo foofu rek ne ah sëriñ sëriñ bi wala ustaas bi mu yóbbu amal xëyaame yàlla na la kaay yow yaa moom aljanna bay yóbbaale kaay nit ñaar ñëpp ma rek la seen kii kon nañu gën a góorgóorlu fu ñu toll fa tabaarakallaahu bañ a a naagu ab jullit du naagu jullit du naagu waaye tim jullit nag du yaafus ñaar yëpp jullit waru koo def wartu naagu waaye tim wartu yaafus ba ne ah aljana du ma fa waaye tim wartu yaafus ba ne ah ah man nag safara daal neexu ba neexu waaye daal man daal macha allah yàlla yàlla est-ce que est-ce que sax man du ma fa kindam nga macha allah yooyu boo koy def dana tax nga am courage di gën a mën a di gën a mën a yokk sa jaamu yàlla kon yàlla nee na fa yaquuloon ñu ngi wax naan maasa araada allahu lu yàlla namm bi hasa masala ci léeb bu mel nii di léeb lu ci mel ni yoo kon wax naa leen njëriñu yoo ak li yàlla def ci yoo nga xam ne yàlla lépp lu mu bind rek fa tabaarakallah bëri na ñoo xamante ni ñi ngi doon mooy yàlla nekkoon ay saay-saay waaye yàlla keroog ba mu leen bëgg a faagaagal yàlla dafa yebal yoo ba mu yebalee yoo yooyu rek la yàlla yebal ñi indil leen màtt leen indil leen ay feebar yoo xamante ni ci la ñu mujjee faag kon boo xoolee yooyu am nañ yooyu yoo xamante ni mission suñu borom bi subhaanahu wa taala fa tabaarakallah weñ tim lu am njëriñ la fa la nga xam ne yàlla bindul dara loo xamante ni macha allah amul njëriñ kon nag ñi weddi ñu ngi naan yàlla lu mu namm ci lii waaye yàlla moomu yu dillu dina sànq mooy dina réeral bii ca loola kasiran ñu bëri ba ñu weddi waaye nag wa yëg dina génn bii ci lii kasiran ñu bëri ba ñu sukkandiku ci gëm bu ñu demee yàlla teral leen yàlla ne wamaa yu dillu du ma sànq wamaa yu dillu du ma réeral bii ci lii illal faasixuun lu dul ñi nga xamante ni ay saay lañ loolu ñi nga xamante ni fa tabaarakallaahu ay génn topp lañ yàlla ne allazina yanquduuna ahdallahi min baadi misaaqi wa yaqta'uuna ma amara bi an yusal wa yufsiduuna fi ardi ulaika humu xaasiruun yàlla ne allazina gaa ñi nga xamante ni yanquduuna ñu ngi firi yanquduuna ñu ngi tas ahdallahi kóllëre yàlla min baadi misaaqi gannaaw ba ñu kóllëree fa tabaarakallaahu ne man daal am jullit la waaye dem ba ci yàgg daal ne neexul ba neexul waaye man daal tey daal bu mu amee envie jaamu yàlla jaamu yàlla su ma amul envie jaamu yàlla du am du ma du ma te fekk yàlla dafa dafa dañoo gaaral dañoo gaaraloon benn amaana jàng nañ ko ci alquran inna aradna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaala fa abayna an yaxmilna wa asfaqna minha wa amala al insana innahu kaana zaluman jawula yàlla ne amaan bi dama ko tegal suuf ak asamaan na dama leen bëgg a wàcce ci fu ñu naan suuf dama leen bëgg a dama leen bëgg a def ay tabaarakallaa dama leen bëgg a amal bu ma leen amalee ngeen jaamu ma bu ngeen ma jaamoo nag macha allah bu ngeen dee ma dugal leen aljanna bu ngeen ma jaamuwul nag ma yóbbu leen safar suuf na ak ne asamaan na ko yàlla mbaa du force ñu ne ko yàlla ne déet ñu ne ko yàlla ne montagne bi ma tegaloon suuf asamaan ndax nangu ko muy amaana boobu ngeen nga jaamu jaamoo fa tabaarakallaahu ma ma jaamoon ma yóbbu la ndax du force yàlla ne ko yàlla xool kenn laata yàlla di pare nit ak jinne ñoo ne ko yàlla li suuf doon gàntu ak asamaan ak montagne yàlla ñun amaana boobu nangu nañu waaw ñoom fa abay naan yax mi laa bañoon nañu pour yenu waaye ne waxamalaat insaan doomu aadama ne yàlla àttan kon nag buñ la fi bàyyee yàlla wàcc la fi nga war a jaam waaye yàlla neexu ba neex waaye indiwu kànn zaluman jëwoon indoona ko doomu aadama kaana nekk na zaluman nekk ku mën a tooñ waaye nag jëwal a nekk koo xamante ni réer kon kon nag kóllëre gi nga xamante ni tax na yàlla wàcc la fi mooy nga di ko jaamu waroo koo tas kóllëre bi nga xamante ni dugub bi bi nga xamante ni fa tabaarakallaahu jàngal nañ la ne la doomu doomu jullit day jullit fa tabaarakallaahu nga ne man ab jullit la doomu jullit la kon bu julli jotee da war a julli bu woor jotee da war a woor yooyu ay kóllëre yoo xamante ni fa tabaarakallaahu donc yàlla da ko wóorlalantoon muy sarta yum ñu fi teg kon nag bu la fi yàlla wàccee kon da nga ko war a jàmm waaye nag ñoom ñoom nag ñoom dañuy dañu koy tas waaw dem ba ci yàgg ñu ne ko buum gi daal yàlla dañ koy dog wa yaqta'uuna ñuy dog maa amara llaahu la nga xamante ni yàlla dëggaloon na bii ca loole an yusala pour ñu jokk ko waaye nag yàlla lu ñu nekke ñu ne yàlla ne wa yufsiduuna ñu ngi nekk ci kaw suuf wa yufsiduuna ñu ngi yàq kon fil ardi ci ci biir suuf yàlla ne ulaayka ñooñu ñu mel melokaan bi moom ñoom rek alxaasiruuna ñooy ñu perte waaye nag yàlla nee na ñu mel melokaan bi ñoom ñooy ñooy tooñaakoon waaye yàlla ne dama leen fi wàcc ñi war maa jaamu waaye nag jaamuy ma waaye nag ñii ñi jël ay istati ñii jël ay nag boo demee boo demee Inde ñi ngay jaamu ay nag fa tabaarakallaahu ñii ne ñun garab la ñuy jaamu yett ñii ne man man man man lii lay jaamu fa tabaarakallah ñii ne man man ab jullit laa waaye nag man bi ginnaaw ba a nekkee jullit waaye man nag may xool jaamu yàlla gi heure bu ma ko sentir waaw caaxaan bu jotee man ma dem caaxaan leneen bu jotee ma dem caaxaan waaye yàlla ne déedéet wa maa xalaqna samaawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin binduma suuf ak asamaan li seen biir pour rek ngeen di foofu yàlla ne bu ma leen bindalee asamaan mu tiim leen fa tabaarakallaaw seen soxla yi ngeen di ko dox ci biir suuf fa tabaarakallaaw kenn mosu leen a wax génn leen yàlla ne nag pour kon ngeen jaamu kon nag yàlla ñu yàlla saxal ca jaamu googu yàlla defal ñu dëgg-dëgg jullit kon mbokk yi foofu la ñuy yem ak yéen incha allah ba bare de incha allah bu ñu ñëwee continuer ko yéen kon yàlla ñu yàlla defal dégg topp yàlla defal ñu tawfiq ak taysir in uridu illa l-islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum